asalaamaaleykum mbokki internet SST TV ñu ñëw ak yéen nag ci xibaaru jëm ci wàllu réew mi biir réew mi ñu euh, tàmbalee ko rek ak li nga xam ni mooy euh, mbirum Ousmane Sonko ba tey ñu gis ni rek tey ji conseil constitutionnel daal génne benn liste bu fanweer ak ñett candidat yoo xam ne déposé nañ seen euh, parrainage fii ci DGE mu mel ni rek fanweer ak ñett yooyu noonu wuute nekk ak deux cent et wala deux cent cinquante candidat candidat yoo xam ne waxoon nañ ne ñoom déclaré woon nañ seen candidature waaye nag li si jaaxal ñëpp mooy ki nga xam ne mooy turu Ousmane Sonko dafa génn ci liste bi ak ki nga xam ne moom lañu waxoon ni mooy numéro 2 euh, wala plan B bu ka parti bi nga xam ne mooy ex Pastef di Bassirou Diomaye fay muy nekk ñaari candidat yoo xam ne gis nañ seen tur si liste boobu nga xam ne conseil constitutionnel génnee na ko publier ko te ñëpp jot ko e, mu nekk loo xam ne jaaxal na ñëpp waaye leneen li nga xam ne tamit e, gën naa e, lëmbee réew mi mooy le 30 bi nga xam ne moom la ñuy tudd suñu ne le 30 nekk ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si réseaux sociaux rawatina ñi nga xam ne ñooy élément yu parti bi Pastef bii di ex Pastef ñoom le 30 boobu bëri na luñ koy publier di ko partager mu fës lool mu mel ni rek nit ñi ñu ngi siy posé question ne lan mooy xew est-ce que Ousmane Sonko mooy déclaré li nga xam ne mooy candidature am officiellement wala moom mii di Sonko dañ koy daal di génne si li nga xam ni mooy. Euh, liste électorale yi wala ndax moom day génn ca prison bi nga xam ne fa la nekk ak lu ci mënta doon daal le trente boobu fës na lool ci ñi nga xam ne ñoo di waa Pastef ak seeni ñooñ ak ñaari candidat Pastef yi nga xam ne gis nañ seen tur ci li nga xam ne mooy liste électorale yi gannaaw loolu rek ngeen wéy di topp SSP TV la télévision qui fait la différence pour andil leen xibaar yi nga xam ne moo si gën a leer